di leen nuyu ca lislaam muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi alhamdulillah dellu nañ ci sun fàttali yi ne amal ci téere bii di xisnul muslim yàlla dogal ñu toll woon ci azkaar yi nga xam ni nit ki mi ngi koy def ginnaaw bu jullee ba sëlmal ba noppi maanaam al adkaaru baada salaami min alsolaa zikkar yi nga xam ni nit ki bu sëlmalee ci julli bàggal zikkar ya muy def nu jotoon ci def genn fàttali mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu daan sëlmal ci julli ba noppi dana def astaghfirullah ñetti yoon teg ca allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa dal jalaali wal ikraam loolu moo nekkoon sunu fàttali ca talaata jeewees tey insha allahu taala ñu bëggoon a dugg ci li tudde tuddee baaqiyaatu saalihaat loolu nag di ay sabbaal ak i sant yàlla ak màggal borom bi tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa daan ko def gannaaw bu jullee ba noppi waaye nag dig ci xeet wi ni aw yiw wu bareen ci danañ ko fàttali insha allah loolu mooy lan mooy li ñuy tuddee tasab maanaam nit ki bu sëlmale ba noppi li tuddee tasab maanaam li ngeen gis nit ñi di ko konte ci ay baaraam di ko wax mooy baaqiyaatu saalihaat ñetti baat la nag am lu leen ñeenteel ñetti baat ya bu ci nekk danga koy wax fanweeri yoon ak ñett maanaam 33 fois loolu soo ko boolee day doon quatre-vingt-dix-neuf maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lay mottali téeméer ba nag kooku beneen zikkar la loolu yépp dañ ko fàttali tey incha allahu taala ak lenn ci ay leeral yu gàtt bu neexee yàlla subhaanahu wa taala loolu mooy lan mooy dangay ngay wax subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar loolu bu ci nekk da nga koy wax fanweeri yoon ak ñett maanaam 33 fois 33 fois yooyu nag soo ko boolee maanaam 33 fois 3 day nekk 99. liy mottali téeméer bi mooy lii may bëgg a wax mooy laa ilaha illa وحده la شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kon loolu mooy baaqiyaatu saalihaat gannaaw nit ki bu jullee ba noppi loolu daf koy def léegi nag lii nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daka daan def gannaaw bu jullee ba noppi sahaba yi daan ko def aw yiw wu bareem ci ma bamtuwaat ko ba noppi dog ca dugg ci loolu mooy da ngay wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bu ci nekk 33 nga wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لولو ngay wax so julle ba noppi subhanallah limi tekki mooy yaa ngi tudd selluk sunu borom di setal yàlla ci lépp luy ëyib ak wàññi ko di wone maggu ko sunu borom tabaraka wa taala ak sellam walhamdulillah loolu it yaa ngi delloo sunu borom njukkal di ko sant di ko gërëm di wone ni cant yàlla rekk la ñeel ngërëm it yàlla rekk la ñeel ci li mu ñu defal mooy tànn gi mu ñu tànn ñu doon ay doomu aadama te defuñu ay bàyyi ma waaye it bi nu nekkee ay doomu aadama mu tànn ñu ñu doon ay jullit te defuñu ay waaye it gannaaw bam ñu defee ay jullit mu def ñu ay jullit yu nangoo dégg ndigal di jaamu borom bi ca nam ko bëggee kon alhamdulillah allahu akbar mooy yàlla dongu dongu moo màgg allahu akbar yàlla dongu mooy ka màgg ka am na ñuy tekki nag ni allahu akbar mooy yàlla ku màgg la am benn tubaab bu ni allahu akbar dëgg-dëgg firee mooy seul Dieu est waaye tekkiwut Dieu est grand maanaam yàlla ko màgg la lu tax ñu ne duñ ko tekkee noonu mooy boo ne yàlla ko màgg la mën ngaa wax ni it diw it ku màgg la diw mee ku màgg la waaye boo ne seul Dieu est grand maanaam yàlla dong mooy ki màgg ki kon keneen màggut yàlla rekk a màgg allahu akbar mooy loolu nga dugg ci laa ilaha illa amul benn yàlla nag bu nu war a jaamu ci jaamu dëgg amul kenn ku ñu war a jaamu amul kenn ku ñu war a sant amul kenn ku ñu war a màggal illa allahu ku dul moom dong nag moom dong nag la war a jaamu moom dong la sharika lahu ɗi suko bokkale darra mom sono borom tabaraka wa taala ken du ko bokkale mindeef ken du ko bokkale leneen jaamu gini koy jaamu mom dongo lañu koy defal duñu ko defal keneen façon sante gini koy sante mom kep lañ koy sante duñu ko sante keneen maggal gini maggal sunu boromit maggal googi yalla dongu lañu koy maggal duñu ko maggale keneen set gi yàlla set ci lépp lu ayib ak wàññiku loolu sunu borom tabaraka wa taala rek ci lañ koy setalee kon yàlla mooy kenn ki ñu bokkaale lahul mulku moom yàlla moom moom nguuru adduna ak nguuru alaxira moom moom nguuru àdduna ak alaxira walahul xamdu te moom yàlla moom rekk moom la cant ñeel ndax lépp luy xéewaluk adduna moo ñu ko defal lépp luy teraangay adduna it moo ñu ko defal moo nu bind moo nuy wërsëgal moo nu may kattan moo tax ñuy gis moo tax ñuy dégg moo tax ñuy wax moo tax ñu gëm ko moom sunu borom moo tax ñu dooni nit moo tax ñu dooni jullit kon moom rekk la sant ñeel wa huwa te moom yàlla ala kulli shay'in qadir yàlla nag lépp loo gis lu ne rek yàlla am na ca kattan yàlla mën na lu ne mën na lu nekk mën naa def lépp nag kon sunu borom rekk la ñuy màggal loolu mooy moy baqiyatus salihat legi nak dana ci dik ci len ci ay njariñ yu ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax waye lu jitu lolu amna ay façon yuñ koy defé gannaaw buñu julle ba nopi lu ko bàyyi xel amna façon 1 façon bu njëkk bi moy man nga wax subhanallah 33 fois alhamdulillah 33 fois الله أكبر 33 fois nga doog indi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir façon 2 manam deuxième façon bi moy nga wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois manam subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 donc beulé dang ko différencier dang ko dang ko takalé manam beul bu ñëk bi da nga wax subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 bii nag da nga ko boole da nga ne subhanallah walhamdulillah wallahu akbar bu ci nekk nga wax ko noonu noonu 33 troisième bi mën nga wax subhanallah dix fois alhamdulillah dix fois allahu akbar dix fois waaw façon bu njëkk bi ma njëkk a wax nag bi nga xam ne da nga koy wax subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 boobu xadis bu muslim soloo na ko deuxième bi nga xam danga da nga koy boole da nga naan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 boobu buxaari yu ak muslim soloo nañ ko bi ngay wax nag subhanallah dix fois alhamdulillah di fois allahu akbar dix fois boobu it mën na nekk boobu buxaari yu soloo na ko façon bi moy subhanallah 11 fois alhamdulillah 11 fois allahu akbar 11 fois bobu it muslim ci bopam solo nako 5e bi 5e façon bi man nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar 25 fois bobu nak ci bopam i solo na ko Tirmizi solo na ko bu la neexee nag mën nga def bii tey beneen yoon nga def bii beneen yoon nga def bii bu la neex it ngay def benn bi rek bu ci nekk bu nekk mën nga koo def waaye nag ni ñu koy defee ci boppam mooy dañ koy utiliser ak sunuy baaraam yi nekk sunuy loxo ndeyjoor benn saxaaba bu ñëw wax Abdullah ibnu Amr yal na ko yàlla gërëm moom nee naa man de gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ko konte ak loxo ndeyjooram beneen riwaaya sax daf ni danaa ko gis muy konte sàbbal ak loxoog ndeyjooram loolu xaddis bi abu daawud solo na ko tirmisi solo na ko nisaa i solo na ko kon yow mi tasab di def loolu yaa ngi ko war a defee say baaraam yi nekk sa loxo ndeyjoor te bañ ko defee nag kurus defee ko loxo mooy bi gën mooy bi yonent bi doon def ak saxaaba yi mooy bi mu digle tey jii nit ki su génnoon àdduna ba ñu koy denc it dañu koy dencaaleeg ay cëram cër yooyu nag da koy seedeel ci kanamu sunu borom tabaraka wa taala kon defee ko loxo bi mooy li gën mooy li dëppoog jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëfi saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko diglee boo xoolee sunuy baaraami loxo baaraam bu ci nekk am na ñetti rëdd rëdd donc baaraam bi bu nekkee cinq doigts maanaam cinq ba juróomi baaraam baaraam bu ci nekk am na ñetti rëdd rëdd kon boo ko defoon rëdd rëdd bu ci nekk benn yoon day nekk quinze fois boo ko dollee muy trente fois nga dolli trois muy trente trois bu la neexee rëdd bu ci nekk nga def ko deux fois bu baaraam yi jeexee muy trente fois nga yokk ci trois muy trente trois donc noonu mooy mode d'utilisation bi noonu la noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee façon yi ma la wax nag nga xam ne juróom la bu la ci neex mën nga koo def bu ci nekk bu nekk rek wér na bu ci nekk bu nekk mën nga koo def bu tayee nga def bi bu elege nga def be bu la neex yit nga jël ben rek diko def lolu nak la tuddé tuddee salihat bat bi ñëw na ci alquran lu mat ñaari yoon ñëw na ci suratul kahf fi yàlla di waxé ni almaalu walbanuuna ziinatul xayaati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك صوابا وخير املا نيواتنا سي بنن سار بني سوره مريم موي في يالا دي وخيني ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا bi nekk ci suratul kahfi lu mi tekki mooy yàlla nee na seen alal yi ngeen am mu bari lool seen loolu yépp taar la dong ci àdduna taaru àdduna rekk ak rafetal la ci àdduna la yem te jeex waaye nag baaqiyaatu saalihaat moom day moo gën ca seen borom mooy fay bi gën ci yàlla te it mooy fay bi gën ci lépp lu waaye di mébét ci àdduna ak alaaxira kon na ko bàyyi xel bi nekk ci suratu Maryam li mu tekk mooy yàlla nee na ñi baax ñi day jub tegu ci yoon wu baax di delloo yàlla njukkal ci jaamu gu mat sëkk te selal njaam ga yàlla mu ne dana len dolde ak njub bañu gëna baax ngir gëm yàlla ga ñu nekkee waaye nag baaqiyaatu saalihaatu day mo gën ci yàlla ci lépp luy ak pay tey lépp lu way di dellu bëgg ci xéewal nay jàpp ci baqiyatus salihat légui nak baqiyatus salihat lenn ci ay borom xam-xam nee nañu mooy lii nga xani moy subhanallah walhamdulillah wallahu akbar moy biñ jàngale sank amna na it lenn ci borom xam-xam yi ñu ne mooy mboolem lépp lu baax lu waay di def rek waaye li gën a wér te gën a siiw mooy baqiyatu salihat mooy subhanallah alhamdulillah allahu akbar benn xadis a ngoog boo xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam mas na koo wax yonent bi dafa toog ba benn bis mu ni saxaaba yi xudu junnatakum na ngeen jël seen défense na ngeen aaru na ngeen défense na ngeen défendre na ngeen jël seen matukaay na ngeen fagaroo saxaaba yi ni ko xanaa noon yi dañuy waaj a ñëw yow yonent bi yonent bi ni leen déedéet noonu yi ñëwuñ waaye nag jël leen seen défense seen matuwaay fagaru leen ba ba du ngeen tàbbi sawara jël leen seen défense ba du ngeen tabbi sawara jël leen seen matuwaay ba du ngeen tàbbi sawara nee na nag loolu mooy da ngeen di wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu wallahu akbar noonu la ko waxee mu ni wax leen loolu su ngeen ko waxee loolu moo leen di défendre ci sawara yonent bi teg ca mu ni loolu day day ñëw maanaam baat yii ma leen wax bu yowmal qiyaamatee day ñëw jiitu leen ci kanamu sunu borom tabaraka wa taala di ñëw baat par baat di ñëw baat par baat ñëwee leen ndeyjoor ñëwee leen càmmooñ ngir lan ngir défendre len ci kanamu sunu borom tabaraka wa taala andil len ay yiw ak pay gu bare bare bare bare bare moy bat yi ma wax yonent bi nak muni ni wahunna albaqiyatu salihat nee na baat yooyu nag ñoom la ñu baqiyatu salihat kon yiw wu bare bare bare bare la mbokum julit man na tax nit ki aru ba défendre ci sawara kon ko bàyyi xel bu baakha a baax mbokki jullit yi nu ñu jaaraat ci kon façon yi mu koy waxe bari na nit ki mën na def subhanallah wal walhamdulillah wallahu akbar loolu mën na ko boole mu defandoo ko à la fois 33 fois loolu c'est valable mën na def aussi subhanallah 33 fois alhamdulillah 33 fois allahu akbar 33 fois boobu aussi c'est valable bu ko neexee aussi mën na def Subhanallah, dix fois. Alhamdulillah, dix fois. Allahu Akbar, dix fois. boobu tamit c'est valable benn bu ci nekk yonente bi salallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bu dee nag dañoo def subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 fois donc baat bu ci nekk 33 muy ñetti baat di 99 fois kon 100 bu manqué benn yonente bi nee na nañu mottali 100 bi nu ko mottalee laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kon mbokk yi loolu mooy sunu fàttali tey noo ngi ànd di ñaan yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy sunu borom di borom yi xéewal ak yërmande borom njëggal noo ngi koy ñaan yàlla na nu jéggal sunuy mboole mi njuum njuumte ak sunuy bàkkaar noo ngi koy ñaanit mu may ñu xéewalug àdduna ak xéewalug alaxira noo ngi ñaan yàlla mu boole ñu saxal ci siraatal mustaqim yàlla na ko borom bi defal mboolem jullit